ni ma koy waxee man ku ma xam-xam ne li ma gëm dama koy wax sama syndicat Cusems authentique ñun position bu leer lan am ci réew mi loolu lan mos a am na depuis ñu nekk élève ba léegi ñun gëmu ñu nekk cim réew ñu ne la yow ab jàngalekat nga sa yoon newul ci réew mi waxal ci njàng mi kese yow ab médecin nga sa yoon ci réew mi waxal ci médecine kese alors que ña la koy wax ñoom jàngun lépp daa am bor bu ñu féete am droit wax ci lépp kon daa am sénégalais yu am droit wax ci lépp ak sénégalais yoo xam amuñu droit wax ci lépp ñun réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk man ñun gëmuñu syndicalisme boo xam ne du wax ci ni réew mi di doxe wax ci ni réew mi di doxee loolu mooy politique. kon nga ni man dama sama syndicat du ma wax ci ni réew mi doxee mais bu réew mi doxatul ba réew mi yàqu dootoo yore syndicat parce que yow da ngay yàquwaale kon nag ñun du seetaan réew mi di yàqu kon suñu syndicat day wax ci politique di wax ci santé di wax ci économie di wax ci ni réew mi di doxe di wax ci liberté yi di wax ci démocratie bi di wax ci élection yi di wax ci lépp beneen bi nag mooy ñun ni ñuy jàppe jàngalekat yi di leen téye ci kaso yi dañ koy dakkal ci nii ci naa parce que li ñu gëm mooy jàngalekat yi seen place nekkul ci ay kaso li nga xam ne moom lañ leen jàppe ci ay tappale la ñu ëpp ci ñoom bokk néew ma bu ñu jàpp benn jàngalekat parce que jàngalekat bu ñu am ay firnde que da taxaw ne nañ ne ay élèves nañ taal ay pneu wala nañ taali école wala nañ def yëfu caaxaan yoo xam ne dañ koy tere nga def erreur boobu kooku yoon dafa war a tegu sa kaw loolu laa gën mais jàngalekat bi nga xam si tamit waxul lu dul xalaatam ci réew mi def benn post Facebook wala dem ci ay groupe WhatsApp di fa wax li xalaat ñu dem jàpp ko loolu tegul ci dëgg tegul ci yoon ñun ànduñ ci loolu kon seen caq seen jéng yooyu ñu takkal jàngalekat yi tudde ko ci tubaab bracelet électronique ay jéng la jàngalekat kenn du ko jéng xam nga lu bëgg nan tekki jéng yi defal jàngalekat yi bàyyi leen ñu dellu ci classe yi jàngale correctement waaye nag taxaw ku taxaw nag wax lu ëpp yoon war na tegu sa kaw man du ma du làq koo xam ni li wax dafa ëpp waaye nag kuy def politique buñ ko jàppee ci mbirum politique bu ko kenn défendre waxu tappale la politique kenn terewu ko li ñu wax mooy bu génnewul jàngalekat yi bu e bu ñu bu feetu pagi jeex dañuy taxaw xeex da leen di génn ci nii wala ci naa parce jàngalekat yi seen place du kaso